Reug Reug ñu lay nuyu di la wax félicitation bàyyi euh, euh, buur maa ngi lay nuyu di nuyu sama gaay yëpp yi fi nekk waaw di nuyu Laasana euh, di ñaanal sama papa ak sama tante yàlla na leen yàlla xaare àjjana firdawsi di ñaanal sama yaay yàlla na ko fi yàlla bàyyi ba si kanam a kanam kanam di nuyu sama papa yépp ku si mel ni papa Laaji papa Tafa papa Garaay papa Amma maa ngi leen nuyu ñoom ñëpp waaw di nuyu sama benn grand muy Leyti Sène di ko ñaanal yàlla na ko yàlla defal jàmm moom ak soxnaam day sonn si samay mbir ginnaaw yàlla Reug Reug tey bu egsee fii layti génne si route bu bëri dama koy teree nelaw dama koy teree doxi ay soxlaam te garant boo xam ne tey dafa dafa bë dafa bëri dafa xat de trop mais jël na xataay yooyu bépp da koy teg fële nekk si man nekk samay besoin nekk lu ma bëgg mu dox si kon kooku aw ma fayam maa koy ñaanal yàlla suñu borom defal ko jàmm. yàlla bàyyi ka fi ba si kanam a kanam kanam ba lu mu séntu si man rek yàlla suñu borom def ko di wax nag Sénégal yàlla na fi yàgg jàmm yàgg. amiin ci barke Seydina Mohamed. retour tuuti sur MMA. MMA mm-hmm. dafa mel ni c'est la terre mm-hmm. mm-hmm. yi commencé def seen entrée ci ci MMA. ci site rëg lu mm-hmm. yàggul yàlla may ko ci ndam lu mm-hmm. ci diggante ak alay alay ngala mais mm-hmm. ñaari combat yi la <laughs> xam mais xam nga tey jii bu ma waxee ne aw ma ay adversaire yoo xam ne mais taille la damay nax sama bopp ndax ñi ma amoon ñi ay professionnel lañ ndax boo xoolee rëg-rëg ñoom boo xoolee maa ngi nuyu sa su mel ni waa Ares ñoom laa njëkk a signal muy waa Ares boo xoolee euh, combat yooyu boo xoolee bombardier ak man ñoo si waroon a bëre ak yeneen mbër euh, mais Ares dafa contacté bombardier bi nga ko contacté mu ne ka dama bëgg Sénégal ñu gën a am peuple wala ñu gën a xarañ su lu ñuy def Sénégal bu ñu ñëwee ñëppay ñëw mu cité ay mbër yu bari dugal ma si ñu jël ma jël ko moom par yàlla moom mënta fay ndax ki mu doon fayatal da ragal ndax yaram bi ni mu tolak yooyu. yàlla suñu borom def nag man ma ma si mooy bi amoon Dakar fii mooy waa Ares boo xoolee ñoom quatre combats laa signé woon ak ñoom boo xoolee quatre combats yëpp jàpp nañ date yëpp ba war a dem nii mais coronavirus beeg feebar bi yaa ma gën a xam buntu yëpp buntu yëpp a tëju xam nga léegi terewul ñu waroon nañoo fight France waroon nañoo fight Belgique Belgique bi mooy dernier ba bi ñu demee ba jàpp 4 avril affaire yi mbas mi ñëw mais jaam ak pexem yàlla ak dogalam. waaw Ares tamit comprendre ñu liit lii euh, envoyé ñu lettre boo xam ne tey jii bu ñu gisee beneen combat am nañ kaa jël tàggoon nañu ak ñoom par yàlla yàlla suñu borom lu muy def rek bu la bëggee dugal si mbir moo xam ne tey jii da lay ibbil porte yi day day yomb seew par yàlla ñu am benn euh, manager boo xam ne moom ak Leyti Leyti la ak Kedo ñoom ñoo nekk sama manager bi mu ngi dëkk Allemagne waaw. bi ñu waxtaanee ba jubóog ñu nag moom mu ne mu nangam nangam deux mois naa leen décrocher ay combat ñu ne ko ok ñu signé bu ñu paree acca combat yi commencé nag si la ñëw décor décrocher woon woon championship. mais ci wàllu xaalis. lamb ji li muy fay moo ëpp wala li MMA. non MMA lu muy fay moo ëpp. waaw boo bëggee dégg dëgg quoi ndax lamb boo moo ëpp fuuf ndax lamb yow un euh, cent cinquante millions la yem deux cent millions MMA ay milliards la. gars yi milliards nañu fay ko. non loolu duma ko wax. santa naa yàlla sant naa si yàlla xanaa déggoo ma yow sa kase yow li ngay fayeeku <laughs> li ngay fayeeku nag ma koy wax. non dama posé question yi tamit ngay fayeeku nag ma koy wax. waaw ca bisimilah. waaw million nañ ma fay. waaw gars yi. non gars yi jàpp ñu woon nag mu yomb quoi ndax boo xoolee non attends non ñi si wax bëri na waaw mais ñi si wax bëri na mais boo xoolee làmb ji combat bi Sénégal dañoo tiitoon ndax waa ji entraînement am ni muy def ay sexe yi muy def ñëpp dañ cee tiitoon ñu ne tey la may rey n'est-ce pas. noonu la demee nag mais man gëmoon naa ni man maa ko mën mais boo koy wax gars yi dañuy yaakaar ni maanaam damay wax ci nii rek mais loolu lu ma gëm la lu nekkoon ci man bu ñu ko dëggaatoon tey sax maa ko loolu dafa am. <laughs> amu ci merci gàllaaj amu ci. dafa mel amu ci ndax boo xoolee bàyyi naa ko trois minutes yoo xam ne laalu ñu lépp technique la ñuy xeexee maak moom laalu ma ko laalu ma ko waaw boo xoolee bi temps bi lee des ay deux minutes man a xaaral kii ma jaay ko fukk xale. daal ci koom mais rek bëri lañu xam ci yow mais dañoo gis keroog nga sànni ay tànk. waaw mais lépp dañuy liggéey dañoo ab fay ay coach yoo xam ne ñun dañuy def suñu bopp xaalis pour ëllëg bu ñu duggee sëriñ bi mën a prouver mën a wane liñ liggéey waaw. jàpp nga ne xale laa nag damay door ba léegi. <laughs> non xale laa. moo tax man la xale laa damay door ba léegi amaguma dara xale laa daal maa ngi sama yoon di entraîné. dafa mel ni bi ñu gisee combat bi am <laughs> euh, ko mhm. jotee tànk bi jugul. Mhm. Mm-hmm. daa mel ni yónnee nga bi tànk yi jóg nañ da naan tànk yi jóg na mais dal na ma mais dama ko baare tànk yi jóg na tànk jóg na le. par rapport ak entraînement xam nga tey ji li ngay entraîné. Mm-hmm. comme gestes yi ngay def si entraînement combat dafa sérieux professionnel la yu ñàkk fay day doo ko def. Mm-hmm. entraînement nag mën ngaa def lu la neex mais boo ñëwee ba si ring bi ban tëj kaas bi ban jël kànnaar bi dugal foofu lu lu lu lu na weng moo la fay tax génn. mais dawul nekk fi di fo. waaw mais xam nga tey jii boo ma nee la ñaanu naa wala ñaanuwul la ma loolu sama staff la intéressé. intéressé wul Sénégal non non non non non foofu professionnel moo fay dox. professionnel mooy dox foofu amul ay ñaan professionnel moo fay dox mais terewul ñun am nañ ñoo xam ne tey jii dañuy ñaanal si àdduna sunu maanaam boo déggee mooy ñi ma ñi ma voilà si wàllu combat yi dañuy ñaanal yàlla suñu borom mais dañuy ñaanal yàlla suñu borom mais joxuñu ñu dara mais ñooñu ñu ñoom ñoo ànd tey mënoo dem di fight doo leen wax dara da leen di wax ñaanal leen ñu rek te yàlla rek tax mais na duñ la jox dara duñ ko def dara mais foofu sax xam-xam moo la fay génne ak sa sa fit looloo fa am mais différence euh, MMA ak euh, lutte simple ak lutte avec frappe lan mooy seen différence waa amul différence nag boo xoolee Euh, amul différence ndax boo xoolee MMA am na boo xoolee 60 pour cent si bëre bëre. dafa am si MMA. boo amulee sens laa dinañ am ñu jóge Europe di ñëw di di jàng fi bëre. ndax am na fi gisoon nañ fi ay tubaab yu ñëwoon ci combat euh, newoon si ay xuwaan. xam nga lu ma mhm. kon kooku rek war na ñu bàyyi xel si loolu. Mhm. waaw. danger bi ñu ko jox amu ko. Mhm. a Aliou Ndiaye champion de boxe aussi. Mhm. bi mu defee analyse yi ay coach Diop ak ñoom ñëpp dañ ne. Mhm. adversaire mën nañu wax ni que. gisul ko ñu. Reug Reug sur sa bëri na. waaw léegi tant que dajewul ak yéen fekkee as rek la ñuy wax man fi ma ne moo ñooñu ñëpp ma mag mënuma faa daje koo xam ne ñoo tolloo as ndax boo xoolee ñoom bala ñoo dem poids lourd dañuy jaar lese jaar poussière. doog a yëg poids lourd nga àgg poids lourd yow day day fekk nga am laxa sa 39 ans wala 37 ans man dama ñëw rek dem poids lourd maa ngi ni gën doon xale. noonu la demee mais gars yi wax xamaguñu. lan la ci MMA bi la. noonu la demee.